vas-y fii si Thiès ngénte ki nga xamee ni mooy euh, Ndeye Ndiaye bi nga xamee ni artiste comédienne bu ñu dootul présente la bokk na si ñu fi teew suñu jigéenu bopp bébé Eva nag xam ngeen influenceuse la artiste la comédienne la ku ñu dootul présente la aussi même ci réew mi euh, tey ñu am mbégte dajeeg yow fii ci bésu ki nga xamee ni mooy Ndeye ak alu bi ñi nga am mbégte déjà bu baax a baax ci occasion bi euh, bébé Eva. waaw Thiongaan

Euh, su demee ba aar ni mu toll moom rek moo am cëru magale ci man que tey bu yàlla dogaloon tey ji may am borom kër moom magale la loolu moom moo ko liggéey moom moo liggéey cër boobu noonu ba am ko ci man ñu jox ko ko moom it mu jëlal ko boppam ndax avant tout li mu ko jëlalee boppam tey ba ñu jox ko ko mooy que Ndeye Ndiaye dina wootee dina ma nemmeeku dina xool ci lu ma nekk su ma amee problème dama koy gis bu duggee dakaar ñëwul kër kenn sama kër lay ñëw su amee ay projet Dakar yoo xam ne tey ji mënul ñëw man mii lay yónnee na Ndiaye pour moom diw bi mu war a diwoo ci yaramam sax bébé Eva moo ko war a lijjanti kon loolu du du ay cadre xaritoo wala dara mais mag la xarit la lépp la. sincérité boobu rek mooy li ma wax parce que man. yàlla dogal na ni du ma faral di wax ni sax diw mooy sama idole parce que kenn laa mës a wax ni ci àddina moom mooy sama idole muy Ngone Mbaye même moom référence la royuwaay la aussi parce que nekk na ci aar kenn mësul dégg lu fi Ndeye Ndiaye def wala lu fi Ndeye Ndiaye wax kon c'est très normal ñu jël suñu bët di ko teg ci ñoom te yàlla dogal na ni man bi may nekk ci aar euh, boobu bébé Eva amagul tur bi amagul sama bët bi dama ko ko mës a teg parce que nag ku nekk nit ku baax wala bëgg ci aar bi dara di nga jël sa bët teg ko ci Ndeye Ndiaye donc moom ak Sumbulu ñoom la ma yàlla natt woon ma jël sama bët bi visé leen ko kon tey su àddina doxee ba man ak moom mësuñu bokk plateau mais mën naa ne tey boo nee boo nee Ndeye Ndiaye ne Soumboulou danga naan bébé Eva parce que fexe naa ba ba dabe dabe nag ci ay nit yu baax nit yu am valeur nit yoo xam ne kenn déggu leen ci dara kon lii nii yëpp su amee tey moom la moom moo liggéey loolu noonu waaw moom moo moo ñoddi ci man rakk rek ma ñoddi ci moom mag c'est ça ndaanaan nga ci li nga ne moom a impressionné ci yi nga xam ne léeg lépp Ndeye Ndiaye série bu mu nekk sax dañ koy xaar loolu yàlla defal na leen ko moom ak Sumbalu série bu ñu nekk ci àddina dañ leen di xaar mais mention spéciale Ndeye Ndiaye eh, moom fu mu nekk dañ koy xaar parce que dafay joxe nit la koo xam ne jàng na ko en même temps talent bi dafa nekk ci moom xam nga tey mooy li may wax nit mën na jàngale lu nekk mais talent kenn du ko jàngal kenn loolu may yàlla la waaw te moom suñu borom sédd na ko ci donc ñu koy ñaanal gudd fan ak wér mu toog ba bébé bi mook alsaan di leen yóbbu màkk ci barke Seydina Mouhamed mais bu ñu amee nag ku ñuy gërëm dëggantaan alsaan lay nekk waaw parce que moom yàqu ci dara parce que tey gis nañ fi lu nekk nit am na talent di moom am jëkkër jékki nga naan ay yow diw animu ñu ne la pourtant moo ngi fi fekk loolu noonu yëpp jëkkër ji moo ko liggéey waa mais moom jëkkëram appuyé na ko jàppale na ko donc alsaan pour moom sax chaque jour dafa war a rester ci ginnaaw Ndeye Ndiaye di génn te liggéey bi yëpp nag alsaan la wax dëgg yàlla nit ku baax la ñun bokk nañ liggéey mu nekk nit ku baax nag alsaan nit ku yéene nit barke alxuraan nit ku baax nit ku yéene nit ndax euh, gis nga nit ki boo dul gërëm nit doo gërëm yàlla euh, dafa am bi ñuy turne kër sëñ bi bi may ñëw foofu noonu boobu maa ngi doog a maa ngi doog a maa ngi doog a ñëw mais figurant laa fa nekkoon Alsaan fexe na ba ma am fa place te boobaak léegi projet bu ñu teg ci loxo Alsaan dafay jàpp ne bébé Eva war na cee mën a bokk waaw moom kon nañ ko ñaanal moom tamit gudd fan ak wér Alsaan nit ku baax la. a loolu la la. artiste waaw loolu artiste la loolu artiste moo ko mën. gis nga tey mooy li may wax rek série yi amaana moo tax nu mënuñu xàmmee ndaanaan yu bari mais ndaanaan yaa ngi ci biir ndaanaan te yàlla dogal na ni ñun ñu dem jàngi ji ko buñ ñee der da ngay xam ne ñii nii am na ci lu ñu jaar te bu ñu tëddoon di nelaw sax boo ñu laaj ñu li ñu bëgg a ñu tontu la li ñu la bëgg a parce que moom la ñu jàng moom la ñu jàng te diir bu diir bu yàgg dañ ci nekk te Ndeye Ndiaye nag tubaarikàlla macha allah réew mi fii marqué na fi empreinte wax dëgg yàlla boo ko séenee da ngay xam ne kee Ndeye Ndiaye la waaye bu neer der nga daw lamb daj moo ngi nii toog moom sama xarit la cas sama xarit la à part Ndeye Ndiaye fii Thiès cas ak Baye Ngaye ndax Baye tamit wax dëgg yàlla bu duggee dakaar ñëwul kër kenn sama kër lay nekk kii moom mention spéciale kii ma ak moom leneen la moom sama xarit la te sama xarit la sama nit la mën na ma woo mën na ma conseiller mën na ma digal lu baax barke alxuraan te du bëgg ma juum Thiès moom mention spéciale fii Thiès waaw ñett ñii nag laa xam ne moom sama nit lañ fi donte ñi ci des ñëpp sekk naa ak ñoom jàmm ndax ay nit yu baax lañ waaw ay nit yu baax ñoo nekk Thiès. émission la di liggéey rek en tout ca même bu ñu tëddoon di nelaw mooy li ma la wax buñ bu ñu yee buñ nee bërëb def li ngeen soxla ñoo ngi lëlu di liggéey ubbil nañ porte yi ñëpp tamit ndax eh, yaa yaakaar naa ni koor léegi yàggul te ne gis na gàlle no stress donc kon BBEVA moom mi ngi fi mu nekkoon ba tey man sama d'origine théâtre la TikTok bi dañ koy mottalikoo rek mooy li may wax tey am na ci xale yoo xam ne bu ñu tëjoon TikTok bi amatuñu lenn lu ñuy def man bu ñu tëjoon TikTok bi damay dellu sama kër sama kër mooy aar théâtre loolu mooy sama kër donc maa ngi fa ba tey. ñàkk parce que loo xam la loo miin la te man ba ma juddoo ba tey aar laa xam. ndax boobu ba tey maa ngi ci nekk kon man moom laa xam mais nag benn instant mën nañu bañ a manqué parce que tamit mooy li ma wax dama toll ci moment wu fayee donc maa ngi gis projet yi mi ngi egsi mais amaana nañ ko bëggee ak man na ma ko bëggee moo mënul nekk waaxuma sama bopp. ces derniers temps gis benn Eva bébé Eva bu am courage vraiment buy euh, waaw mais àddina lépp muñ la àddina lépp muñ la bi ma xamee ne benn nit a lay rey fukki nit suul la dama fexee jël sama àddina suukar ko donc noonu laa mës a dundee sax waaw man noonu laa mës a dundee dama mës dama mës a bëgg jàmm. dama mës a nekk nit boo xam ne wax dëgg yàlla lu ma neex ak lu ma naqari nit du ko xam amaana nag mooy li ma wax rek internet moo xaw a doy waar mooy tax sax peut-être ñenn ñi ñenn ñi xam ci yow lu ñu war a xam ci yow wala ñenn ñi di wax ci yow lu ñu xamul ci yow mais man loolu laa mës a dund man fépp fu ma nekk na nit ñi di kaf di foo di reetaan loolu laa xam waaw. si si théâtre da nga a nekk nit. man nag kaay ma wax la lii daa yàgg ak man nag. caaw coow daa yàgg ak man mosumaa wàcc te kaay ma wax la ñaari ba ma juddoo ba tey coow topp na ma am na ci sama benn série bi ma ko doon ma ne làmmiñ ak bët bu mënoon man dara bu ma juddoo laay delluwaat loolu noonu lu ma gëm la de dem naa fi ba Gàmbi coow loo xam ne fekkew ma ko ba mu amalante dem demalante pëli sama tur moo jiitu ca pelante bi te nekkuma Sénégal nekkuma Sénégal xanaa loolay wax buñ ko cuub naa ko ba sonn nag mënuma ci dara mais dafa mel ni xam naa ko bu yàgg xam naa ko bu yàgg des fois da ciy baax nga génna leeral pour ñu xamul mooy li may wax man ku ma sori mën nga maa bañ a comprendre waaye ku ma jege bëgg ma nit ku baax laa. ban satisfaction nga diggante sa àddina amut solo. bàyyi mu amut solo. àddina amut solo. réeroo la woon rek. amut solo. dama ni dama ni lépp gën rayante àddina amul solo man bébé Eva jomb naa di wax lu ñaaw wala ma di ko def dama ko def sama naaw la kon man nañ loolu nag loolu nag loolu nag dama ne woon sax du ma ci wax parce que wax nañ ci wax nañ ci loolu noonu ba pare jàll na kon kon am na loo xam ne duñ ci waxaat mais gis nga fi mu ne nii ku ci nekk rek da ngay wut loo yóbbul sa njaboot ku ci nekk da ngay wut tamit loo xam ne moom ngay liggéey pour yóbbu ko seen kër jàmm dellu si na am na ndax àddina amul solo waaye mais ku ci nekk nag fi mu ne nii da ngay rayante loo yóbbul sa njaboot présentement bu amoon xam ne bëgg nga ko jàllale vraiment ci jigéen ñi xam ne ni dund tey nga surmonté ko ba tey gëm sa bopp nañ gëm seen bopp ñu am fit fii réew la boo xam ne dafa naqaree dundee neex a deewee dégg nga ma réew la boo xam ne dafa naqaree dundee neex a deewee takkal sa fit jàmm yombul nag yombul de ku la wax ne yomb na waxul dëgg parce que des fois du doon yow yow tul nga wax ji mais sa njaboot ñi la jege ñi la bëgg te bëgg ni dafa metti soo jooyee ñu jooy boo reetaanee ñu reetaan dafa metti des fois sa biir famille xamuñu sa biir famille nu mu demee xamuñu ba xam sa yaay juboo nag ay sëram xamuñu des fois nga am ci koo xam ne doomu jàmbur yaa ngi koy ërtal di ko wax ju naqari di ko wax ju métti tey ba ci biir famem sax dangay ngay dégg ku naan ko ñaw di ko jëwee après moom da koy dégg du am lu ci wax donc nañuy sóoraale des fois nañuy sóoraale famille yi nañuy sóoraale doomu jàmbur yi nañuy sóoraale wax ju ñaaw dafa ñaaw nit loo yenu ba àttanoo ko bul ko teg doomu jàmbur nit lépp loo yenu rek ba àttanoo ko bul ko teg doomu jàmbur donc loolu rek laa am ci lu may wax des fois dañuy sóoraale loolu mais fii fit dëgg moo la ciy génne doon jàmbaar dëggantaan njaay moo la ciy génnee nañ takk fit yi ñu doon jàmbaar loolu laa am ci lu may wax Oustaz Modou boobu loo ci xalaat. kan la. Aïssatou Diop Fall ak Oustaz luñ jotee. luñ jotee. Ah, ay waay loolu nag duma ci mën a xóot xam nga seetaanu ma ko. seetaanu ma ko boobu ba tey maa ngi doon wàcc.